ndaje bi mooy formation audiovisuelle bu ñu doon def fii comme niñ ko defee ci yeneen formation yi euh, di ko indi chambre de métier di ko fi defee euh, di wax ni euh, cadre de concertation moom moo initié formation bi ñu ànd ci ak suñu équipe di liggéey liggéey bu bu sell bootu aussi ci gannaaw chambre de métier wala leen ñun dañu jàpp ne ñun dañu war a dooleel chambre de métier parce que dooleel chambre de métier moom mooy dooleel secteur l'artisanal ca euh, réew amul nu muy doxee lu dul secteur artisanal réew bu fekkee artisanal doxul leneen du dox euh, mbay mi ñuy wax ak sàmm napp lépp euh, dafa bootu ci gannaaw artisanal kon artisanal dafa toll foo xam si dafay sooxe ni muy sooxe mooy dañuy manqué ay formation manque de formation yooyu ñuy am nag dafay jaadu ñun ñëpp kenn ku ci ne xam ne yow kat war nga ci dugal sa loxo dem ñu mën a jàppale secteur l' artisanal ba ñuy am ay renforcement de capacité bu fekkee loolu mi ngi am secteur bi toujours dana gën a mën a dem. waaw lii lii bokk na ci jàppale parce que euh, tey boo xoolee du ma ni formation audiovisuelle mosu fee am am na fi xëy na waaye néew na kon lii ci ci jàppale la bokk parce que bi ñuy natt di bind projet pour euh, defal artisan ay renforcement de capacité dañoo nat xool ne secteur bii kat ñii di def audiovisuel. ñoom waxuma dara mais mbas mi dalee na laal bu baax parce que programme amatul dara amatul kon naka la ñuy def ba ñu jóge ci euh, étape bi ñu nekk dem ci beneen étape nga xam ne dañuy yokk seen xam-xam loolu ñu ngi ciy dox te yemuñu ci loolu itam ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi tàllal suñu loxo yeneen i partenaire yoo xam ne naam buñ ñëwee dana indi leneen lu bokkul ak lii euh, li ma leen di lancé mooy ñu retourner xool secteur artisanal parce que développement mënul am sans secteur l'artisanal gis nga euh, wax naa ko keroog nii artisanat liñ mën a def ci ci ci ci réew amul leneen lu ko mën a def euh, développement bu gaaw bu ñu bëggee réew mi dox ci dox bu gaaw dañuy gees secteur artisanal parce que wax naa ne état ni mu jàpp ni moom la ñuy jàppalee ay nit noonu naam mën naa jàppale ci wàllu moyen mais nit ki bu fekkee da ngaa débloqué ay moyens jox ko ko te joxoo ko xam-xam moyens yooyu alal ko dafay seey. Hmm. xam-xam mooy jiitu ay moyens soog ci topp. parce que la preuve boo xool affaire bi am na ci tey ñoo doo xam ne dañu dem ci banque bi def pre mais bi ñu def prêt amuñu amuñu programme prêt boobu dafay sey ci seen i loxo kon nañ renforcer chambre de métier chambre de métier am ay renforcement yu doy mën a renforcer artisan yi artisan yooyu aussi ñoom ñooy ñoom ñooy dem ba ci biir kër gi ñoom ñooy jàppale xale yi kum mu mën a doon euh, bu artisanal doxee rek danañ la mën a toucher